Thank <laughs> you. toujours dans votre actu du jour de ce 30 mai 2024 fii VIP People TV suñ fa jógee dañuy seeti ki nga xamante ne mooy le général Souleymane Kandé ginnaaw bi ñu ko affecté foofa ca New Delhi mu doon attaché militaire doon na daal li nga xamante ni kii di ex président Macky Sall moom moo jëloon li nga xamante ni mooy décret jaarale ko ci ñi nga xamante ni mooy attaché de presse yi muy benn importante de précision boo xamante ni dañ ko war a def jëmale ko ci affaire u général Souleymane Kandé bi nga xamante ni mooy généralu armée de terre ginnaaw bi ñu ko affecté foofa ca New Delhi jëmale ko daal ci li nga xamante ni ñenn ñi ñu ngi koy contesté mais lu mu mën a doon kii di ex président Macky Mon ci boppam mo jëlone décret bi nga plus lepp qui lu jëm ci walu attaché militaire dañ ko wara désormais dans tek ci généraux yi nga xamanteni ak officiers yo xamanteni dañu am haut rang muy décision bo xamanteni ki di président Macky Sall moko jëlone muy décret bobu nga xamanteni ni ngui koy gis suñu sukkandikoo ci constitution bi notamment muy article 43 45 76 bo xamanteni suñu ci loi numéro 62 37 du 18 mai 1962 mo fixé statut général des officiers actifs bu force de l'armée ginnaw loolu dal biñ ko par loi 65 10 4 février 1965 sous coup loi bi nga loi Bing, numéro 7023 du 6 juin 1970 vous portez organisation générale de ko défense nationale dans le koy modifié Tu loi numéro 8462 du 16 août 1984 relative à l'organisation générale des forces armées Les plots xamante le complet loi 8902 du 17 janvier 1989 Maurice de décret bi nga numéro 89682 du 14 juin 1989 mon fixé régime bi nga xamante ni rémunération jaarle ko ci ay fonctionnaires yoo xamante ay agents en service de poste diplomatique le wala consulaire jaarle ko ci ay services yi nga xamante ni nañ ko rattacher ou bien daal di koy modifier par yeneen décret muy li nga xamante document yi ngeen di gis nii Macky Sall moom moo abrogé woon moo di woon signé décret bi donc ci décret bi la Bassirou Diomaye Faye daal di sukkandiku pour exiler ki nga xamante ni général Kandé foofu ci New Delhi en Inde mu nekk attaché militaire ci ambassade bi nga xamante ni moo nekk <laughs> Yeah.